mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp ci turu Touba ca kanam di siyaare kilifa yëpp waaye tamit di jël nuyoo beeg siyaare bi yëpp di ko teg ci loxo sunu jëriñ sunu kilifa sëriñ Habibullah di ko ñaanal sunu borom yokk katam ak gërëm. waaye tamit di siyaar bu baax di siyaar bu baax alxalifa al aam li taifati al muridiya di cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal di ko ndokkeel ci taxawaayam rafet yi yàlla yàlla yàll na yàlla gën a dëggal taxawaayam eh, may ko kàttan ba mu liggéey lu kawe kawe kawe njortam ànd ko murid yëpp nag di masawu coono tamit mbooleem jullit Sénégal yëpp mbooleem sax doomu adama yëpp laay wax ci Sénégal rawatina waaye tamit ci àdduna bi yëpp na ci fan yi ñu toll mi fan yu metti fan yu tiitlu fan yu jaxaso ndax mbas mi nga xam te dugg na fi mbokk yi tey ñu war a ñëw tey ci waxtaane waxtaan wu am solo woo xam ne jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax te mooy takaaful ijtimaa'i ahamiyatuhu wa asaaruhu Tuubaa ca kanam na musa jën mu jamono bii ñu toll rawatina sax jamono bu nekk waaye jàppante ak dimbalante gi war a am ci suñu biir ñu taalibe yi rawatina ñu jullit yi loolu am solo gi mu am solo ak Tuubaa ca kanam taxawaay bi mu ci am loolu lañu war a waxtaane ñu tënk ne ci juróomi tomb tomb njëkk bi mooy daan soññee ci benn benn aaya ak i xadiis yoo xam ne wax na ci wàllu dimbalante ñaareel tomb bi danañuy wax yan jumtuwaay la mën a teg pour dimbalaate googu mën a nekk mën a nekk lu dëgg mën a am njariñ waaye tamit ñetteel ñetteel tomb bi daan waxtaanee ci effet wala njariñ wala taasir bi nga xamante ni si dimbalante ci kanam mën na ko def suñu biir rawatina Tuubaa ci kanam taxawaay ba rafet bi nga xam ne moom la ci am ñu jeexale ko nag ay ndénkaane ak bàyyi loo xel ñu bàyyi loo xel jullit yi ci fan yu metti yi ñu toll. mbokk yi dimbalante moom ndigal la loo xamante ne si mën na naa xam farata la suñ borom moo ko santaane ci ay aay yu bëree bëree bëree bëri euh, néew na nga dugg aw saar ba mu jeex te suñ borom waxu leen fa waxu fa jullit yi ni na dimbalante na ngeen dundale ci yoonu yàlla wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal borom mi ngi ni sant ñu dimbalante ci mbaax ak lépp loo xamante ni de jëmale nit ki ci ragal yàlla waaye tamit bu nu sa mukk safaan ba safaan ba mooy lan mooy dimbalaale ci lépp lu waral bàkkaar wala lépp loo xamante ni day waral ak noonoo suñu borom na ngeen ragal yàlla benn aayaa ngi nii boo xam ni tënk na lu baree baree bari ci li ñu war a waxtaane mi laysal birru an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wa kitab wa wa aatala maala ala ay bi laysa birru suñu borom def ci wax ni yéen jullit yëpp na ngeen xam ni mbaax moom nekkul di sëgg ak sigg rek di julli bari mbaax du koor yu bari mbaax di jublu penkoo ko sëgg sëgg déedéet waaye nag baax dëgg-dëgg nag mooy nit ki ginnaaw ba mu gëmee yàlla gëm gu wér gëm yomal xiyaam gëm ni yàlla am na ay malaaka gëm ni yàlla wàcc na ay téere gëm ni yàlla am na ay yonente loolu moom ci wàllum gëm la ginaaw gëm nag ca toppaat mooy wa aatal maa ala xubbi nit ki na jël ci alalam jëm gën a bëgg di ko joxe li nga gën a bëgg nag bu ñu ko joxee maanaam mu wax ñu ne comme niñ ko suñu jamono ji sarax yoo xam ne da ngay jël la nga xam ne maanaam soxlaatoo ko di ko sarax wala ni boo kon dimbalante bi li ci ëpp solo mooy li jox nit ki na doon loo xam ni forcément day am jariñ ci moom daf ko jëriñ lool mag day wax ni li ngay joxe fa mu jógee boo fa gaañu rek fa mu jëm dafa jariñ kon fa mu jógee faa mu dafa ab pax moo xam ne na leer yi nangam jógee na fii loolu tamit suñu borom wàññi ni booy dimbali nanga nga tàmbale ci sa wil xurbaa ñi la gën a jige ma bu doon mukk sàmm àllara waa nag na nga tàmbale sa mbokki bopp ba ci noppee nga ci wata yataama muy miski muy muy jirim yi boo noppee nag dem ci way ñàkk yi boo noppee dem ci doxandéem yi boo noppee nag dem ci laajkat yi ba ci sax borom bor yi ba ci sax jaam ba ba jaam daam yooyu yëpp ko wax leeralal ñu maanaam ñën leen di war a dimbali ba noppi door nag waa aqaama salaa loolu indi ni ngi taxawal julli xoole kon ginnaaw ngëm yàlla rek lam fa teg dafa leeral ni ñu war a dimbalantee ak ñan lañu war a dimbali booy dimbalee boo noppee nag nga door nag taxawal julli nag kon dafa mel ni ko ndekee nit ki bu taxawalee julli sonn ca lool te dimbaliwul ay mbokkam dafa mel ni la muy def du ko jëriñ lu bari ndax ñaar la xam te ni maanaam benn mën cee dem bàyyi moroom ma faaw rek ngay julli waaye tamit faaw tamit li suñu borom wax mooy lii mu la dénk na ko bokk ak say mbokki jullit na nga ko bokk ak say mbokki jullit mbokk yi euh, innamal mu'minuna ixwa bu ko yàlla waxee ñu yëpp ay mbokk lañu na ngeen defar seen diggante defare gi mënta weesu jàppalante mënta weesu dimbalante kon force la kon jàppalante ak dimbalante ci biiru société bi ci suñ biir ñu jullit yi nan lay mën a nekke yéen tamit mën ko jàngal ñu xam dëgg-dëgg importance bi benn xadis ak ni salaasam nee na misaalum jullit yi ci seen soppante ak seen yërëmante ak seen ñeewante dañoo war a mel ni benn yaram benn yaram ni muy mel nee na bu fekkente ni benn cër jàmbante ci rek cër yëpp ay gaare maanaam bu fekkente ni da ngaa xëy di metti doo liggéey liggéeyi pourtant mën ngaa dem liggéeyi de waaye doo xëy liggéey ndax lan yaram yëpp yëg tàngoor wi ndax dañuy taa yaram yëpp ay metti day mel ni tey da di wàll dégg nga bu fekkente sa bopp mooy metti doo liggéey bu fekkente ne sa biir mooy metti doo liggéey noonu doomu aadama noonu cër yi mel nag doomu aadama yi noonu la war a may ñun ñëpp dañoo war a yëgandoo li nga xamante ni mooy xew ci sunu mbokk jullit ku ci am jaam ñëpp yëgandoo ko jàpp te waaye tamit ku ci am leneen it lu metti it ñun ñëpp ñu yëgandoo ko ba mu yëg ni maanaam lii di moom dong nekk na ci ak mbokk kon loolu moom la jàngale foofu yonent sallallahu wasallam wax ci beneen hadis boo xam ne buñ ko defee woon rek kon lii lépp naa bañ mooy ni kenn ci yéen ak ngëm yàllaam du mat lu may lu mu bëggal boppam daf koo bëggal mbokkum jullitam waaye bu fekkente ni maanaam loolu di wax sama bopp ma la gën a du bañ naa la loolu moom si du waxee wolof la waxee ceddo la waaw nit ki maanaam sa mbokk moo la war a gën a sax sa bopp wa yusiruna ala anfusihim wala kaana bihim qasaasa kon loolu mooy lu wér loo xam ne maanaam julli war nañ koy bàyyi xel mbokk yi yonent bi salaa salaam mi ngi wax fi benn xadis bu am solo mu ni jullit dëgg-dëgg mooy koo xamante ne saa bu xëyee day xëy ci aajo jullit ci ci aajo mbokk mbokkum jullitam te mooy képp koo xamante ni yaa ngi ci sa aajo jullit yaa ngi ciy dox di ci wax nee na yàlla dina taxaw say aajo képp ku taxaw ci soxla doomu aadama yi yàlla taxaw sa say soxla képp koo xamante ne si yaa ngi tegli nit ay coona yéen tegli ay njàqare yàlla moo lay teggil say coono moo lay teggil say njàqare mu wax ni képp koo xam ne yaa ngi suturaal jullit yàlla dana la suturaal ak yawmal qiyaam bis ba nga xamante ni moom dong moo am sutura mu waxaat faneen ni eh, yàlla mi ngi ci ndimbalu jaam bi mi ngi dimbali jaam bi fee jaam bi mi ngi dimbali mbokkam kon lekk ku bëgg yàlla dimbale la na ngay dimbali sa mbokk jullit yi na ngay dimbali sa mbokk jullit yi alxuraan wax ñu ci beneen aaya boo xam ne moom tamit leer na ci lu bari mooy masalu la sina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallaahu yudaa'ifu liman yashaa mbokk yi dañ bàyyi xel aaya bi bu baax suñu borom nee na misaalum gaa ñi nga xam ni ñi ngi jël seen alal di ko dépense ci yoonu yàlla nee na ñi mi ngi mel ni ku jël sa dugub maanaam suul ko maanaam ji ko benn pepp nga ji ko mu sax juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub yooyu benn bi ci nekk am juróom-ñaar am téeméeri pep mu juróom-ñaar téeméer man ne benn pepp nga sax woon maanaam nga ji woon nga am ci juróom-ñaar téeméer masal li gën a gaaw mooy fii ñu toll nii teg tu euh, démb rek wala barki démb Serigne Mountakha digle na ñu dem ruuji ruuj li ci topp mooy faru faru mooy ji dugub ji moo bu ñuy jiyee gone gu ndaw ngay jox lu mat juróomi kilo wala ñetti kilo sax léeg-léeg juróomi kilo yooyu ci dugub bu demee bu ko jiwee ba demee ba ci kanam ba nawet bi wàccee tool ba mën nga caa génne lu mat 5 tonnes wala 10 tonnes te pourtant juróomi kilo la woon de nee na nag lu baax noonu la mel. boo joxee benn ma defal ko ba muy juróom-ñaar téeméer boo defee fukk ma defal ko ba muy juróom-ñaar téeméeri junni loolu moom suñ bi boobu boobu bënis suñu borom dong moo ko am te nee na nee na sax li may fulale di ko di ko multiplier man maa xam fan lay yem man maa xam fan lay yem kon nag loolu muy loo xam ne lu jar a bàyyi xel la waaye nag ñun danañu dimbalee ci suñu biir bu baax a baax a baax waaye léeg-léegi nag dana am loo xam ni dana yàq suñu dimbalante gi mooy dimbalante gi ba pare. maanaam toppaati rek tudd ay kàddu yoo xam ni kàddu yooya daf koy tax sa mu xaw koo suur waaw maanaam di ko ñax su du woon ak man maa jox nangam maa la may nangam maa la lii loolu alxuraan nee na nga wax wax ju rafet sax moo gën nga wax wax ju rafet moo gën wala nga jéglu ko moo gën moo tax mu ni na yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yajiduna ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrun inda rabbihim kon kii def lu baax daf koy def te bu fi ta feeñ am na benn xarit bu wax ni sarax bi gën mooy sarax bi nga xamante ni bi ko nejar bi joxe càmmoñ bi yëgu ko waaye bala ngaa saraxe woo ñëpp ñu teew ñu yëg ko loolu moom amul njariñ ñaar ba tamit nga di ko def naan maa wax nangam wala maa def nangam loolu tamit suñu mbokk yi ah, suñu borom gërëmu ko kon nañ koy bàyyi xel baax a baax mbokk yi lii nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jàngale woon ci saxaaba yi waaye ñoom tamit ñu mën ko baax xam ko baax sallallahu alayhi wasallam am na benn bis Euh, mu rey gàtt ak li mu doon néew néew doole moom salaa salaam mu maanaam maanaam du woon ku alal li mu doon néew néew doole bi mu reyee gàtt bi nit ñi ñëw mu di leen ci jox di leen jox di leen jox ba mu des benn tànk kanam bi suñu yaay Aysa ni ko ah sallallahu alayhi wa sallam yow joxe nga lépp ba mu des tànk kanam bi mu ni déedéet ñu dem ñu ko lépp fi des maanaam tànk kanam bi ma joxewu rek moo dem moo li Sëñ Tuubaa di wax naan lépp loo xam ne bëggoo ko ñàkk de ko joxe nit ki lu mu bëgg te ñàkk na ko joxe nit ki lu mu bëgg a bari na ka joxe ndax yàlla moom lépp loo joxe rek mu delloo ko wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu saa boo joxe yàlla moo la fay wutalaa leneen kon ndeke li nga joxe maanaam moom nga am waaye li nga téye moom moomoo ko li nga téye moomoo ko loolu yonent bi xam di jàngale fii xoola kenn ngi nii ci gaa yi yonent bi sallallahu alayhi wa ak keneen ku ñuy wax Abdurahmaan ibn Awf ñooñu de ay jàmbaar lañu woon yoo xamante ne si déggoo nañ bu baax a baax njàngale bi yonte bi keroog bi ñuy waajal xare xare Tabuk la woon muy xare bu tàngoon bu metti bu sori bu laaj alal ju bëree bëree bëri yonte fëgg na fëgg fëgg fëgg laajte laajte nit ñi li ñu indi amul solo ndax boobu dafa teewoon nag mu jamono bi mel nii suñ jamono bii boobu jamono neexul maanaam ci Madina li indi lépp maanaam attanul xare bi yéen salaam di yuux ca kaw ni ana kan mooy waajal xare bi yàlla jéggal ko ana kan mooy waajal xare bi yàlla jéggal ko bi mu ko waxee rek Ousmane daa daw dem këram Ousmane ba mu demee dem këram nan la def nee na daa daal di dem indi lu ma juróom-ñeenti téeméer ak ñeen fukk ci ay gëléem daa di indiwaat juróom-benn fukk ci ay fas xanaa muy junni yemu ca mu daa dem jël alalam jooyu yépp ëmb ko ci daraam maanaam ci ci daraa ju mu yoroon muy alal ju bëree bëree bëree wax nañ ni matoon Euh, ñeent fukki junni wala boog ëpp na sax ngay wax nee na bi mu dikkee bi mu xappee yonte bi rek yonte bi dafa mel ni ko afale ci niñ ko mën a waxee de tiit ndax li mu indi woon rek junni ci ay waajukaay ci ci diggante fas ak gëleem mu indi wàllu xaalis boo xam ne ëpp na téeméeri junni ci booba jamono bu na léegi mu nga ne ay milliards la ma dafa mel ni ku tiit ba dafa jël kaala gi taf ko ci gémmañ gi daal di jël loxo bi loxo bu tedd ba di ko te ci alal ji ci alal ji di wëlbati naan maa darra Ousmane Badal maa faala Badal yow mi ma dara Ousmane ma faal ba dem Ousmane bis ni ki tey mënatoo def loolu yóbbu sa wara bis tey mbaa yàlla ne la loolu neex defal lu ko ko may joxe gum joxe dëgg dëgg dëgg dëgg ci yoonu yàlla waaye Ousmane moom tamit loolu mu def nga xam ni maanaam def na ko ba suñu borom mbaa ba ko yàlla da koo def ab yi ab soññi bu léeg ko def waaye tamit am na keneen ku ne ci wetam ku ñëw Abdurahman ibn Awf ci jàmbaar yonent bi la bokkoon ci jàmbaar saxaaba yi la bokkoon moom day lan la def moom dafa jël benn toolam ni tool bi may naa ko waa kër yonte bi suñu yaay yi muy soxna yonte bi lu ci génn ñoom ñoo ko moom moom it li Ousmane def def na ko ndax ci xare bi may wax nii waajal na lu ma juróom lu ma juróom ñeen fukki gëléem jox na ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñii ni ñeenti téeméer ñaanam ñeenti téeméeri gëléem jox na ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci benn bis goreel na fanweeri jaam ci jamono boobu moom Omar moom Abdourahman ibn Awf mooy kenn koo xamante ne si ci benn bis jox na waa kër Yonent bi sallam ñeent fukki junni ci diinaar si seen xaalis booba kon kooku tamit jàmbaar la woon Babacar Sadiq ak Ousmane wala Babacar Sadiq ku ne xam na ak Omar ibn Khattab benn bi sallam bi Yonent bi laaj waajalee laaj leen ni leen maanaam waaye am na ko indi Omar daal ni moom danaa fexe fexe fexe ba maa daan maa daan Babacar Babacar du ma daan mukk waaw tay moom maa koy daan daal di xaaj alalam nam tolloo li muy bari bari bari mu xaaj ko indi génn wàll gi ni sallallahu alayhi wa sallam tey moom yonent bi du ma daan tey moom Babacar du ma daan tey maa koy daan mu ni ka ah, daa mel ni Babacar gis na la de mu ni ka ah mu ni ko daa daa di woo Babacar ni ko loo indi mu ni ko indi naa sama alal lépp lépp laa indi mu ni ko loo fa bàyyi mu ni ko bàyyi naa fa yàlla ak yonent bi Omar daal ne ah man ak kii daa xam fu mu koy jaar rek xoolal kii ni mel xoolal ñii ñoo déggoon dëgg-dëgg li alxuraan di wax ñii ñoo déggoon dëgg-dëgg euh, euh, yonent salaa salaam li mu jàngale woon ci ci ci xarit bi ma wax léegi. waaye nag ñii ni ñu meloon ak lii ñu amoon ñu ah, ce que ñun amuñu ñu mel noonu am na ñu mel noonu am nañ ñoo xamante ni ay Babacar am nañ ay Ousmane am nañ ay euh, Omar am nañ ay Abdourahman Ibn Awf suñu jamono bi am nañ ko kenn ku nekk la mën a jël ci sa alal jënde ko aljana lu yomb lu bar la te du la wàññi dara mbokk yi jànge loolu dañu war a bàyyi xel bu baax a baax a baax am nañ ko fii suñu Sénégal gi xoola kenn ngi nii koo xamante ne si muy maam Thierno Ibrahima Fati maam na Ibrahima mam Thierno te Daaru Musti moo xam ne naa moom ñu tudde borom Daaru Muxti kërug joxekat bi moom dafa mënoon a joxe mën a joxe ba àddiyam Sëriñ Tuuba maanaam ñi daan dem dan daan tase ñuy ñëw nga xamante ne waxtu bu nekk yoon day mokk rumbu te ñuy yóbbu ay addiya waaye loolu yëmu ca am na at boo xamante ni booba amul leen indépendance avant indépendance la woon tubaab bi moo fi nekkoon senegal maanaam bekkooroon boo am ñu ab dund tubaab bi dafa ñëw si mam Thierno Ibra Faati ni ko boo jàpp du baax nan la def dafa jël biste Sénégal jamono boobu mu jox leen ko loolu kenn moo ko def nga xam ne biste Sénégal yëpp la lay jox. keneen a nga ni maam Cheikh Anta nag foo koy bàyyi muy muy kenn ko xam ni li mu def ci yoonu murit kenn mënu ko wax. nga xam ne maanaam sëñ Moussa dafa ni lu nekk lu baax lu ne moo ko njëkkaam ci yoonu murit maam Thierno euh, maam Cheikh Anta moomu nga xam da nga naan sëñ Tuubaa da koo créé woon rek pour maanaam muy faj maanaam buumi gàcce yi. daf koo créé woon rek muy faj lépp loo xam ne yoon bi soxla na ko ci wàllu alal wàllu xaalis kooku kenn la ci waaye na xanaa doo ma ne sama dumbe nag sama dumbe borom xabaan ak borom déndey moom bi nga xam ne waxuma ak tërbiyaam ñi ne dem na fanweeri at ñi ne ma musta wàcc musta wàcc xataa ba bi ko sëñ Tuubaa wàccee sax bi ko sëñ Tuubaa wàccee sax dafa dañuy rus naa mukk sëñ bi gis ma naan ana waa kër ga dama dem te toole kay dëkk fa di bay da ko yër rek waaye du ma wàcc mukk loolu moo ko yóbbu woon mu dem déndey dëkk déndey ndax bëggul mukk sëñ Tuubaa ne ko ana waa kër ga li mu bëgg a dëkk ma ana waa tooya noonu la def noonu la def ba fa la kooku muy sëñ ma ndumbe waaye am na keneen fay baa sa Issa Diène moom nag mi nga xamante ne si li ma wax ci maam Thierno wax Cheikh Issa Diène euh, euh, euh, wax ko ci sëñ Madoumbe moom moo wala bal ti mbooleem ñi nga xamante ne Serigne Touba yaroon na leen ci joxe waaye tamit kenn ngi nii ko am te ne moom bu ñëpp xam ko muy Babul Mouridina maam Cheikh Ibrahima Fall moom it ban taxawaay la amoon ci joxe moom dafa demoon ba wax nii sax yéen dee féete woo wax rek man may féete woo jëf waaw loolu moom lu ñu jëru sara ku ne xam na ko kon ñun ñooñu ñooy suñu roykaay ah ñu bi amoon Serigne Touba am nañu mel noonu ñun tamit bu ñu bëggee ñu roy ci joxe ci def lu baax am nañ ko bëri wata duñ sonn xataa ba suñ jamono ji ñu wax jamono sëñ Saaliw sëñ Abdou laat dégg nga sëñ Fàllu kenn ku ci nekk bi la nga tolloo def nga ca loo xam ni yéem nga jamono waaw ndax ci yoonu murid rek lañuy la ñuy gisee ay xalifa général yoo xam ne dañuy dimbali état bi ci xaalis ñoom ñëpp ñoo ko def waaw sëñ Saaliw def na ko barki démb boo ñaar sëñ taxaa def na ko ñëpp fekk ko ñoo xam ko du lu yàgg waaye tamit sëriñ Saaliw ci joxe Serigne Sall ci boppam nga xam ne ñun dañoo dund ak moom ci lu bëree bëree bëree bëri fekk fi lu bëree bëree bëri santaan yii muy fëri fëri dëkk bi yi ci Touba wax dëgg yàlla euh, diñ ko fàtte mukk danaan def bu noo jotee bu bu ñu musaan fii noor bi xaw a sori muy sëpp ay camion te gudd leen daan jóg du topp topp sancaan yi di wër topp sancaan ku ne àgg rek wàcce fa saaku ceeb saaku dugub ak leneen leneen leneen mbokk mi muy nettali ni ma dafa am benn bis moom nee na àndoon ñu dem euh, di joxe ndimbal yooyu yi sëñ saaliwu yi bi nee ba ci benn kër fekk la ñu tëdd ay xaaju ay minu yooyu xaaju guddi nee na ñu fëgg waa ji bi ñu fëggee mu jóg ni lan la woon mun le ñu ni ko sëñ saaliwu de moo fi moo la jox lii euh, saako ceeb bi ak saako dugub bi nee na dafa daara daw bàyyi leen fa daw bàyyi leen fa daw ñu dékk mu fëgg soxna si jugal jugal jugal jugal soxna ko lan la ñu ko jugal sëñ saaliwu ñëw na waaw jugal taar reer sëñ Saliou ñëw na lekkee kooku ñoom lekkee demoon na ba tëdd sax te réeruñu ndeysaan mu ko jugal taal reer sëñ Saliou ñëw na bi mu ñëwaatee ñoom dafa ñëw dafa ñu ànd ak jooyam ne sëñ Saliou moo def lii sëñ Saliou moo def lii nga xam ne maanaam dafa ànd ak àll kooku nee na bi nga nettali sa Saliou sëñ Saliou doon jooy waaw ndeke dëkk dëkk bi am nañu ñàkki noonu dëkk bi am na nañu sonne noonu kon mbokk yi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaye tamit nañ bàyyi xel ni bala ñuy jàngale lool dëgg-dëgg am na loo xam ne nag moo ko jiitu mooy lan mooy li nga joxe na nga joxe li farata ba pare farata ji mooy asaka ji ji mooy asaka ji na jiitu ba asaka jiitoo rek ñu génne ko joxe ko euh, nañ ko war a joxe te nañ ko war a joxe fii nag Touba ak sax feneen fu Touba ba léegi damay gëm ni joxe wuñu asaka ndax jamono xulafaa rasidin jamono Omar ibn Abdul Aziz euh, nañ daan joxe asaka suñ ko doon joxe asaka kon maanaam benn doomu aadama dootu ñàkk ci kaw kon dool dafay jeex ak ñàkk dafay jeex. Amar ibn Abdul Aziz ñaari at la def ci xilaafa gi asaka jim daan joxe mujj na boo ko jëlee di ko joxe doo am ko ko jox ñëpp am ndax la dañ ko daan jox ñin ko war a jox waaye dañ ko jox asa du doon asaka yaama neex asaka yaama neex wala kii sama sëriñ le ñun nag fii da ngay gis ku jël asaka muy ay million mu dem jox ko sëriñam sëriñ sañ bàyyi xëy na ab sëriñ du lekk asaka ab ab sëriñ du lekk du lekk asaka ab sëriñ du lekk sarax ab sëriñ aadee lay jël kon sëriñ bi yow sëriñ bi bu la joxee bu la joxee asaka ah soo ko delloowu tamit jëlal jox ko ña nga xam ni ñoo ko aajo woo ñoo ko war a jël waaye ab sëriñ moom wutaleeg sarax wutaleeg asaka te suñ jamono si nag daa mel ni saa bu ab sarax génnee wala asaka génn daa mel ni ñoo ci gën a sonal nit ñi ñoo ci ëppale te loolu tamit jar na jàngtaat baax a baax a baax kon li ñuy génne ci hadiya yi di ko génn ci tabaski yi di ko génn ci waqfu wala wasiya wala lu mën a doon loolu ay ndimbal la yoo xamante ni nañu góorgóorlu baax a baax di ko jox ñi ko moom muy àgg fa mu war a àgg muy àgg fa mu jëm waaye bu dee loo xamante ni lu ñëw rek ñañ ko dénk ñu ngardaajoo ko daa ci tedd lii am mooy am rek mooy ñàkk gi day gën di bari te nag mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ni lekk benn dërëm boo moomul xajul bàkka xajul bàmmeel benn dërëm boo moomul xajul bàmmeel rawatina nag ay saaku ceeb ñu jox la ko di la séddaloo nga yaakaar ni yaa tey kii am nga kaan wala gañe nga wala déedéet na la leer boo duggee bàmmeel saaku ceeb yooyu yëpp ak dugub jooju yëpp ak alal jooju lu muy bari bari bari bari dañ koy def am mat di la ko xambe yow loolu yow mi lekkoon alal alali jàmbur yi euh, mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax a baax ni Serigne Touba li mu digg rëy na lool li ngay saraxe digle digle ko ci joxe ci yoonu yàlla lu rëy rëy rëy lu jar a bàyyi xel la loo xamante ne si euh, jullit yi war nañ ci góorgóorlu moom nag daf koo déggoon moom Sëñ Tuubaa dafa déggoon lu baax lan mooy joxe ci yoonu yàlla dafa déggoon baax la mooy dimbalante ba tax na ba mu dikkee dafa daal di samp ma xidma xidma mooy lan mooy lépp looy defal jullit bi rek ci lu baax xidma la moo tax mu ni wa qiila in xadara yawmul yi wa duriba siraat fawqa annaari wa kaabadal waral jawa wal xumma naada munaadin ayna ahlu xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumiruna li jaay musriin ëllëg yowmal qiyaam nee na bu ñu taxaw coono beeg tàngoor weeg jafe-jafe yëpp jàpp doomu aadama yi nee na day am ku woote yàlla day woote benn malaaka mu yuuxu ni eh, ayna ahlu xidma ana ñu daan xidma jullit yi ana ñu daan dimbali jullit yi ana daan liggéey jullit yi ñoom ñu ne ñu ngi ne ñu leen gaaw ñu leen gaaw leen gaaw leen gaaw ba ñëpp ñëw mu leen dem leen ngeen dugg àjjana gaaw yéen moom coono beeg jafe-jafe yi seen yoon nekku ci sëñ Tuubaa waxaat faneen ni benn tib boo xamante ni fatt na ab xiif moo gën tabax junni jumaa wa luqmatun tasud batna jaa'ihi afdalu min bina alfi jaami benn tib boo boo xamante ni fatt na ab xiif moo gën tabax junni jumaa waaye mbokk yi mbokk yi euh, jullit yi rawatina taalibe yi fii ci Touba ak feneen sax fu Touba nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, lii sëñ Touba wax fii li sëñ Touba wax dafa wax ni képp koo xam te ni mën nga dara lu mu néew néew néew bu ko denc na nga ko jox jullit yi na nga ko jox su mbokkum taalibe yi su ko defee foofu laa ñëwee nag ci sunu mbooloo mu yi nga xam te mu barkeel mi di Touba ca kanam ay taxawaayam moom de day ak ñaan gu nangu Touba kanam ñaan gu nangu la ci sa ñaan sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko ñaanoon moo waxoon ni waliyaha bi kulli xarfin minha jamaatan xaadimatan wa sunha yàlla yàlla nga ma defal mbooloo moo xamante ni daf may liggéeyal di liggéeyal julli yi te nga ñoŋal ko mbokk yi ñun li ñuy ndamoo muy Touba Ca Kanam li ñuy ndamoo wala sa muy nuroo ndam doote du ndam maanaam transparence bi ñuy wax nga xam ne li ñuy def lay leer naññ li ñuy jëlee fi ñu ko jëlee dañ koy xam waaye tamit fa muy dugg dañ koy xam di meer wu dee nga mën a def bilan mën a wax ni nangam moo dugg nangam moo génn lii lañ ci def loola sëñ Tuubaa moo ko ñaanu moo xam ni jamaatan xaadimatan wasunha sëñ tamit mu leer leen ni képp koo xam te ni yaa ngi ci Touba Ca Kanam yaa ci kaaraange sëñ Tuubaa yaa ngi ci kaaraange yàlla moo waxoon ni yàlla nang ma boole sama murid yëpp dafa ma seen kaaraange tey nag mbooloo mi tàqalikoo woon nanga ma ne dajaleel kon Touba Ca Kanam am mbooloo la moo xam te ne xamante wuñu woon dañoo tàqalikoo woon suñu borom dajale leen maanaam moo tax moo tax mu ni yaa rabbi ijaalil muridina maan fii xisnikal xasini wa chamlaj maa mbokk yi euh, Touba tey amu ci kenn ko xam ne mën nga yeewoo Touba te Touba Ca Kanam jëriñu la amu ci kenn ko xam ne mën ngaa teg Touba sa tànk sa Touba ci kanam jëriñu la mbokk yi Touba ci kanam day euh, boo doxee ci mbedd mi rek gis li ñuy def mu jëriñ la gis njëriñam benn nga jaar ci mbedd bu mu defar wala nga jaar ci ay lamp yu mu taal wala nga sax nga naan ci am ndoxam moo xamante ni moo ko defar loolu fan yi loolu leer nañ fan yi barki démb boo jaay donc ñu ngi dépanne ñetti forage te yaakaar na war nañu dépanne waa yeneen ñaari forage ngir ndox mu ñàkk mi ci biir Touba ak yeneen yeneen yeneen yeneen ñu xam ne nag ci biir Touba ca kanam moom lépp moom Touba ca kanam léppam social la waaye ci biir social boobu nag dafa amaat social ci boppam. amaat maanaam beneen commission boo xamante ne si la tax a jóg mooy way néew doole yi donc moo ko tax a jóg loola nag bokk ak seen ñaar téeméer yi ñuy wax par weer bokk ñu dara ba loolu moom lu waay man la lu waay man la saa su nekk. moom ngay gis ñu koy joxe di ko joxe way néew doole yi li nga xamante ne maanaam sëñ Tuubaa moo ko ñaan ci dëkkam bi bëgg dëkkam bi mel ni wax ni yàlla yàlla nga ma defal sama dëkk bi mu mel ni turam ba ci aljanam mu taaru lool Tuubaa ci kanam ci loolu lay dox moo tax li ñu bëgg dëgg dëgg dëgg mooy Tuubaa ci kanam dem ba mel ni turam ba ci aljanam mu ci ci taaru nga xam ne suuf sax dootu fi am lépp dañ koy gadrone ne day am ay làmp ndox mi day baawaan naka sëñ Tuubaa bëgg daal lool ci la ñuy dox loolu nag sëñ bi mbooloo mi ñàkk cee bokk wóolu ñàkk cee bokk wóoru kenn ku mën a doon ñi ngi lay woo nga teel a ñëw gaaw ndax lii kat li sëñ mu taxaw wax dafa doy sëkk ca njëlbeen nga dañ woon am naa ci yaakaar ñu dox tuuti mu ne am naa ci yaqiin yaqin jooju nag mu wane ko nan la ko wanee dafa lépp lu Touba Ca Kanam yëkkati moo xam social lu mën a doon day daal di jël xaalisam bu am solo def ci moom rek lañ ci xam ci koo xamante ne si maanaam lu mat juróom-ñeent fukki ak juróom ak moom mi ngi leen di daggal rusi sa weer wu dee moom rek lañ xam ci koo xamante ne si bi ñu lu ñu woor social lan cee def mu ëpp la ñëpp maanaam barki démb yàggul daal ci jamono màggal gi bi ñu def social daar yi di leen wutal ay basang moom téeméeri basang la participer amul keneen ko defaat moom social am dafa yéeme moom fii mu taxaa maanaam ni mu doxee rek dafa daal xel dëgg dëgg dëgg dëgg te it daa doy sëkk sëkk sëkk képp yaa ngi ci Touba wala boog sëñ Touba nga koy nooyee maanaam nga ñëw ànd ak sëñ sëñ mu taxaa ci Touba ci kanam ci liggéey bi nga xam te maanaam moom la ñuy liggéey ndax it nag mu dal xel lool moo dal xel lool mbokk yi Touba ci kanam lépp ci ay poste de santé lim fi def ci ay daara defar ci ay daara ca université bi lim fa def maanaam maanaam mënoo koo lim mënoo koo lim li ma wax daal mooy képp ku mën a doon rek soo xasee dugg Tuubaa rek da ngay suba ci kanam dana la jariñ benn nga lekk ci lu mu joxe maanaam nga nga xiiru ci aw ñamam barki démb dong jox na fi junniy daara ak lu topp ay saaku ceeb loolu ñaata million junni ñaata million yi taalibe wala ñaata million yi taalibe maanaam ay ay jullit ñoo ci xéewlu bokk tey sa sawaane yooyu kon mbokk yi maa ngi tënk Euh, li may tënk nag di ko jeexale mooy euh, ñi nga xamante ni borom mën loo na leen ba ñu joxe ci yoonu yàlla wi ñan koy dégg di leen joxe loo nañ bàyyi xel li muy bëgg a wax Sëriñ Tuubaa da nee na benn sarax maanaam mën naa yóbbu aljana ñetti nit mu dem ba ci biir mu ni mën na yóbbu aljana ba juróom-ñaar fukki junniy nit ba juróom-ñaar fukki junniy nit mën na ci yóbbu aljana di benn sarax nu mu ko defee mooy maanaam borom kër gi bu dee ci kër gi la wala borom entreprise bi bu yëkkatee ay million jox ko ñoom mu wóolu ñooñu buñ ko jaaralee yoon ñoom ñëpp mën nañu caa dugg àjjana ba doonte mat na juróom-ñaar fukki junni ku mu jaar sa loxo rek nga sellal ko sa àjjana taxaw na yow jënd nga sa àjjana waaye tamit ku mu jaar sa loxo tamit nga sànq ko li ma wax léegi rek. alladina yaknizuna alladina yaknizuna dhahaba wal fiddata summa la yunfiqunaha fa bashirhum bi azabin alim ñi nga xamante ni dañuy denc alal yi néew doole yi alal ji ñu war ko joxe joxewuñ ko nañu xam ni nañu xam ni ñu ngi ñi maanaam sawara la ñuy lekk seen biir alal si yekk na ama am waalita ama zulman ñi lekk alal jirim yi ci tooñ nañu xam ni sawara la ñuy lekk indi ma yekk lu fiitoonihim naaran ma jeexee ñaari hadis yéen sala dafa waxoon ni yonent saa sallam dafa waxoon ni ñii al ashari yéene de muy waa Abu Musa al ashari ak i mbokkam ñoom seen doxin daf maa neex lool man ci ñoom laa bak bokk ñoom it man lañu bokk ndax ñoom de saa bu ñu amee soxla wala boog ñu war dem xa ñu war dem xare dañuy woo ñu am ak ñu amul ñëpp kenn ku ne indi la nga am bi ñu ko indee ñoom ñëpp nag ki ki indi woon million ki indi téeméer ki indi junni bu noppee nag ñu séddale ko seen biir kenn doppale kenn ñëpp tooloo mu loolu de neexi na ma loolu de neex na ma lool mbokk yi mu waxaat feneen ni yàlla am na malaaka moo xam wala boog am na ñaari malaaka yoo xamante ni fajar gu nekk daan wàcc kaw suuf bu nu wàccee dañuy ñaanal ñi nga xamante ni ñi ngi jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla waaye tamit bu muy malaaka waxee ni yàlla mbooleem ku jox alalam ku joxe alalam na nga ko jox lu mu wuutal na nga ko jox alal ju bëree bëri waaye mbooleem ko li mu am da ko téye kooku alal jooju yàlla na yàqu waaw ñaan googu nag ñaan gu bàyyi xel la kon nag mbokk yi ñi ngi daaneel foofu di wax daal ni Touba Ca Kanam ñaan gu nangu la ñaan gu nangu nag kenn ku nekk da war a nga ngéej bokk ca war nga ngéej dugg ci biir ba nga xam ni yow mi kër sëñ Touba bàyyi na la xel bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah